ba xam Argentine dafay ñàkk lan coupe du monde bi nga xam ne jot na koo jël nag dañ koo retiré waat ci moom ou pas nag lan moo xew Papu Gomez mi nga xam ne dañ ko suspendre nag dopage te daf ko jël avant coupe du monde bi ba xam Argentine dafay ñàkk ou pas dinañ ci ñëw salaamaaleykum amateur de foot ñu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant Argentine jël na coupe du monde deux mille vingt trois vingt trois vingt deux vingt deux je ne me trompe mais. ñu ngi rumalaat ba xam daf koy ñàkk ou pas nag Papu Gomez nga xam ne mën naa yi dañ koo jàpp nag dopage suspendre nañ ko deux ans te dopage ba mu ko commencé avant coupe du monde bi la woon te foofu gars yi ñu ngi sikki sàkk finalement Argentine ba nii ñu toll nii du ñu retiré coupe bi ci moom nag lu waral loolu deux personnes la ñu laaj que ni si la ñuy euh, suspendre euh, équipe boobee retiré waat coupe du monde bi ci moom. espérons Argentine ba ñu amaat beneen joueur boo xam ne jàpp nañ ko ci dopage lu ko may ah nar na indil problème. kookee di équipe argentin boobee mu ngi noonu bu Lionel Messi bi nga xam ne moo jël lu euh, l'unique ba coupe du monde am 2022 bi nga xam ne jot na wees foofee ca Qatar Papu Gomez dañ ko jàpp nag dopage suspendre nañ ko deux ans l'ancien joueur de Séville et de l'Atlanta et tout moom nag mën na pénaliser Argentine surtout ñu gisee beneen joueur argentin boo xam ne bokkoon na ci coupe du monde bi ñu jàpp ko si dopage dopage ba mu ko jëlee euh, mën naa ni produit bi avant coupe du la ko jël mën naa ni mën nañu retirer coupe du monde bi ci kookii di Argentine bu Lionel Messi ma leen xaar ci commentaire yi pour en bu kenn ren amaatoon ci diggante bi ku ñu euh, jàpp ci wàllu dopage nekk ci sélection Argentine te football ci coupe du monde bi jël ko avant coupe du monde ba ñuy retiré coupe du monde bi lan ngeen di wax ak nan ngeen ko gisee ngeen bindal ko si commentaire yi képp koo xam ne abonné ko sama chaîne YouTube dugal sama bio TikTok nga bëgg ko YouTube mu yóbbu so Assane eh. sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo far kontaan naa wallaay ndeysaan saa yi gaynde la quoi ñoo far avec mon grand Diouf mais bëgg nañ ci waa mais Bamada wax Eh, wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan kese do continue

Yeah.

والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على بأحصى لما لبثوا أمدا leen yàlla def ay Chinois. ngeen mokkal alxuraan. ndax mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax a baax. yaatu macha allah. yàlla leen yàlla def ay Chinois. def leen ay yàlla fay leen dégg ngeen yàlla fay leen ci way ak jàng alquran